laate bagate en baye jeyde mama mayo ngimyo yana jajay mesehe tawne lamin jager mese baye baye tawne lamin jager anade bayo obino madongel wara chunjuma jintel baye seexay xalkande bacce koraxabel waagande bacce korawaagel ndaga baƴa babit nana kadega ɓakum njanjaloori waag dala bakana kam leem gal kooki waag na yedomaag sabasay waag doqooka gay siri waagun maay waadude waagun kiileem baylo waagun naaga cey seexayo tawne ami seeno seere ami ndoo fane njom ne olam jey se ko koor ba panon adama labo jey rogo tewa non kayayum o koor saagu num saagu jeg na saaga yebo saag laage faama doxa yegaan fay njaaka jiine yajaari jiin teg jama jiina jiina xano maata ngaay fay kam layo ko diiga paaraar waaga no warin majero jiigo mombe waaga no warin ɓegaɗo pulɓoy ɗum wagaɗo warin deyse mayo mayo mayo madago desee maya kerelonga nderangaliida kaɗu ɓaɓay sefay japenala japan younala gawam jegenala tiñan sayumala mayeten ɗuma bay jay ɓagolo bay yeg bay tey de wayoo doomu tubaaba di biskit liiru jàng tuut fay yaa di buur la bay yaa di deer bu la sadi doowoor sagalee noo njaam yab la gani réew yaa di dugal maa saara ngoone sabaat baa sori ngaw ileesa bee ileesa bul dina sangiraan bay yaa di duuban lees ku la ko di dooña maas ku la sol nga am nga ñaa bay mais seexee bayoo taaw ne la bint seyo kooro jege jigéen ondo kooro jombal may me nan yo seyo goro handi jager me seyo fayo ngim yo yaala jaajay saltiki yaala jaajay xaw kaande pacce kooro wel wa kaande pacce kooro waagel ndaka bañama mit na naka dega baagum me seyo min nuna tey me reer ndaanaan ma yëngu leen gis yo reer say roman way leen no de baka say roman say roman gimta mo bi romado say roman say roman ne seri vato say roman say roman ne seri amina say roman Cheikh Omar mi taw ne ami seeno Cheikh Omar Cheikh Omar mi nene gi mamado Cheikh Omar Cheikh Omar mi yaadi dey njabooto Cheikh Omar Cheikh Omar mi degay mu njayaayo Cheikh Omar Cheikh Omar mi tamo bi namado Cheikh Omar Cheikh Omar ngimme to yaay ata arde mama de mama diam kere no kate ate mama caaxaan yaay ma jalanaan mais far yaaye juma yaa ngor fari njaaga jiine ina jaari jiin tan jama jiina jiina xano maa dangaye kam layong reeway kam bom reewo baaran kam dereyanga rimeel baarana rimeel ma ñaal ma maamina subga ka fay ka tubaago ala yaaye laara noon dimli bo et toujours la meilleure fay a doon teena lay le dépôt de camarade May a donte na la yaay na boo daan comme obligé tout le monde May mais pour a def ala yaay tout ça bo di la bo daan jam ji alaaji jam a donte na la yaay ma moyi baba moyi mi ngel bo nata May séeréero ala yaay jangere ma yaay yaara tefe hangaanin tootoxo koɓa yaakaara tefe ndigol naar waya bangalama yaakaara tefe jalam nun say biram yaade ma dongel kana danga bori o ya mama danga yei mete waya ngongo tawne amiseno tawla mine wayo ne bonga amino tay bilay me rabe ane jom ne ola me guba gub katere mese o fay gi mo ɓiy no man tey gim ka ɗimo noon siide nan a loola ka ɗima sasay ka sayanama gim ka ɗima ɗoxoɗen ka ɗoxanom sa xaala gim ka ɗimo ke min ka winda gim ka tamo kem tam ñam tuɗuña ɗima ɓal tey bilay bilay woynana miñi woye buur bay tey me seexoma de fayo woye kirilonga ndeerani kendo

ndolo nanna laana tey gifta dima ndolo siide nanna loola mais japaase o koor faamanoona te malaago jeyɗo way biram yaa dawa gar la ko na ma janga way ko ñap la jige la mo sala la ge ta ngal man na janga sangen gure ma tay wa to ga je man wa to ba ko ba ja ke jura ja ke ju man mo janga way tay bilay way biram yaa dawa gar le kan jom de ko la me se way ko jom de ko la tay la ya yo way la wi ya ya tay ko ba pa do na te mala ko je

e amina ndaw tey dawle amidelo tawanela min fay ngim yo yaala caaƴayo koor faapma noona temana ko jeyro ngim katima ndagayla sayanamaxaada tey feo ngimo ɓiina maan fay teye mbin nuna toyam la yor de baytu alfuri bul tiire adama waaw adama baytu waa dégg nga

ñoom ne xoola lan. ami ami ami. ne ñoom ne xoola xolal ndeysaanum ki ma see ko maa doo bay ndeysaan ki ma see ko maa doo bay bay ram yaa ne baaga bayyande ɓeram yande wagan ndeysan meki mo ɓinoma ɗoway ndeysan teyla bagata e jeenoway bayyalnade bagata e jeenoway ndeysan ma ɓure jaxe cuujun bay nene jaxee cuujuunu ndeysaan cey tanu biram jaxeeru ndeysaan me faga ma jaxawoo bay ndeysaan bay korba ma noonaayo nene me gimisee xomaado me xane jom ne xooloo bay ndeysaan o bina maado waaru ndeysaan a ci juma ji ndeeloo bay nga ndeera fay ndeysaan li daga du ba bo fay ndeysaan gi mo be na ma do fay ya way gi me se ho ma do fay ndeysaan boy na me jal di kayo fay ya day gi me se ho ma do fay ndeysaan no bi ngel waar bay goor fay daa jigéen mu naan taaroo bay seexoo oo bina maa to ngel waar bay seexoo cey doomu buur du reeroo bay buxiyee way gi ma seexoo maa doo ee xane ne xoolaa bay bay yaa dex ne jom ne xooloo bay bay ndeysaan nawet ba laa ba njëy roo bay yee way na fi njalti kaayoo bay nee nee mee ngi bi see bay nee nee mooy ngi bi see xamaadoo bay moom ma jof gibi rik ade ca kanam xara wala yee way ana jof de koodoo bay kerando nga ndera bay ndeysana di takanu babo bay e wayna la ni ñi waye buro bay e taculen ko namu ko bariro bay ndeysaan ne bat nu bat nu mbok bariro ndeysaan ne bat bat nu mbok bariro sane ki mo pino ma do bay na mi nyal de kayo bay ngimta mo pino ma do kalwar bay se o je korwa manona bay ne zan me te mala ba je ro bay ne fa ne jom na ko bay bay na waaye ko yàq xarit lañu waay. waaye sama nene me kere longa nderang bay ye bay li taga du babo bay ngimta mose hopi no mado bay nesan me kere longa waaw salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum mbokku diaspora bi di nuyu ñëpp di rafetlu toogaay bi macha allah tabaarkàlla nee naa la lu yëngu lu ne la ko yëngalu ko doole. te nee naa la njuutu lu ne njuutaay la waaye ku ci gileem juutu tabaarkàlla nga gis njuutaay lu sori su may way wala may wax ci Cheikh Bamba général nee naa la duma ma doyal ndax fii ku ñeme dañ laa dee te ndox bu xeeñee rek dafa rax. Cheikh Bamba nee na me Bamba borom Touba ajara na xam ndiiroo. nee la baaxi mbokk yi tax a baax wërsëg dëkkul fenn ndeysaan kenn du nduru mbokk kenn ku ne say mbokk ngay ndiru Cheikh Bamba général. saltige caajaay bi su ma neexee jaare ko ci fay biram penn waagaan dugg dugg waagaan xanjis waagaan waagaan ku ma sànjaay kooku Mbaye Ngom mooy maamam moo aay ci soxla gaañi ku feebar boo ñëwee mu faj ku xiif boo ñëwee mu jox la nga lekk ku wedd na ma laaj wax dëgg yàlla duñ naan xare xare ku ko ku ko fekkee rek moo ko mën a nettali wax dëgg yàlla wax a ngi doog jot nag nee la bu may wax ci Cheikh Bamba général. bu ma ñëwee ci kër Cheikh ba général damay kontaan kontaan ba sama kontaan kontaan may ma toog jaaxaan di reetaan mel ni kuñ coqataan ci poqataan wóor na maam jaara bu sa borom poroxaan. bëgg Cheikh Fall lool bëgg sëñ Touba lool bëgg njabootu sëñ Bamba bu baax a baax a baax jël yaakaaram jël àddunaam alaaxira loo ko gën a loo boo boo bëggee nax sëñ sëñ Cheikh Bamba général da koy jaare ci maam Cheikh Fall daaboy maam say Ndiaye biram jege nga ca mbaay kor dëgg góor dëgg bàyyu Lalla Fall naa la li ko dalee njukki ba ñamatin dañ daan dajaloo di naani biteel nee naa la maam Cheikh Rafal moo ko fa jëlee ba diina dafa leer kon sëñ Cheikh Bamba général nee naa la. taalibe Sëriñ Tuuba me Ibra Faalo way nee na ko ne ñoom ne xooloo me Cheikh Bamba général bay. nee naa la li yàlla nam war na lu jàmm bi nam war na yow jàmm bi boo nammee toppal li yàlla nam ndax toujours namm namm yàlla mooy nammi nammi. bu yàlla ne waaw léppay changé nee naa la da lay jëlee ci benn yóbbu la ci cent fekk la ci fukk yóbbu la ci deux cent nee naa la moo ci mën fuuf Cheikh Bamba général su ma ñëwee nee naa la bu may wax ci Cheikh Bamba général damay kontaan ndax wax dëgg yàlla lekkatu kase naxul bay ngaskatim ba ngaskeer fay ndax a bekkaam coow. nee la ku benn ñaata ak ku naan saam ñaata bokkuñu te wax dëgg yàlla nitu yàlla. daa bokkul ak sëriñ Cheikh Bamba mii nitu yàlla la nee naa la li muy baax baax baax social baaxu ëpp ci social lay dox di ci xëy di ci yendu di ci fanaan kon nee naa la mi ngi fii ci parcelle unité 25. képp ku bëgg lu baax ñëw fi wax dëgg yàlla toppewul nit dara moom balaa mën a kontaan nit ñëw ak tiisam nit ñëw ak naqaram nit ñëw ak ay jafe-jafeem. mu fajal la ba nga gis tawféex ak taysiir yaade dey juseero fay me jaɓen jaɓeno o ɓi dogina loola me sahoma jaɓano oh, fay nee naa la dafa yamale lépp te dañ naan ndey ji seex njaaxanaa la war a tëddee ah moom de wax dëgg yàlla nee naa la xàmmeewul boroomi milliard xàmmeewul boroomi million xàmmeewul boroomu téeméer rek boroomi ñaar fukk boroomi fukki dërëm ñëpp la jël boole yamale këram gaa ngi nii boo fi ñëwee indi sa soxla dala koy fajal bu dee da ngaa xiif mu ñëwee mu jox la nga lekk ba suur boole ci di ñaanal di ñaagal ah. Eh, ma dongel na Lamine Ndiaker way taw na Ami Sendo way nee naa la bu ñuy nee bu ñuy séddale jàngoro nee naa la bépp bu ñuy séddale jàngoro jëlal siti waaw sama maam moo ne ma bu ñuy séddalee jàngoro jëlal siti ma ne ah, mu ne ma ndoxum siti nga xam ne boo ko jëlee da ngay wokk muy gën a neex wax dëgg yàlla sëriñ si bari nañu mais man Cheikh Bamba général moo ma jaral te nee naa la ragal féete day xañ a wërsëg te li yàlla nam war na li jaam bi nam war na bu yàlla nammee yow jaam bi nga namm yow jaam bi bàyyi li nga namm te nga topp li yàlla namm ndax nammi namm yàlla mooy nammi nammi fa tabaarkalla macha allah jotaay bi rafet na. kontaan nañu wax dëgg yàlla Cheikh Faye ngi nii. nee naa naa la lu ko jar moo ko jar. wax dëgg yàlla te nee naa la li nekk suñu xol yëpp mënuñ ko wax buñ ko doon wax tey fii la ñuy yendu. wallaay ndeysaan di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal sutura di ko ñaanal tawféex wax dëgg yàlla. mbage raw na pàcce mbage rayo hmm. ngimanama sehova yabinoma dongeloro sheri amina oo ngimobinoma dovayoya ngimiseho mado mbirambe nawagan lade magatenyen vai magurejehe cujun tai bailo midongoro vayo naa la bu yàlla di def mbir day bàyyi ba ñëpp nelaw mu def ko fa ñëpp xëy gis ko fa moo tax nee la lu waaye réyub cër réyub cër cër war na yóbbaale cërub nit cërub nit ku bëggit ba fa amit nawa gi noonu barki yonent bi borom cee borom ceeb yi neex yi ah la borom soos yi neex aa ah, yaay daba Serigne Cheikh Faye eh way somma déggal ma lii mais andi na baj bageeru na baj ke wo bageera yo ndawe waaw Ami Ndaw Ndaw Saane nee na fara faxa bara mbirat dukuman waaw nee naa la yow Ami Ndaw boo ñëwee dañuy jug taxaw barke yonent Yàlla Muhammad mais gi ami ami ami ami oh, oh, na tandawo waay tey na pajketen mbageero lu jawul bagel waaro naw maafe moo jigun fuuf mais ndaw su xeesango jey na pajketen o ndeɓandongo maxa jey yaayu bébé gën a neex ci amina maxalam da ciy def ay li nga fi biti ey waay na nene amina we yaay me do muti baba de miskin liru jandu tuto nawe ngo jayo waine no bino mado nawe me ser bamba bugangai e manena nayo nawe ami Cheikh Bamba la bëgg Cheikh Bamba ami la. Cheikh Bamba de abuga ngay seexa lay abuga ngay ami lay abuga na waay de e waay buga na buga na buga na waay de waay me buga na buda ye buga na me nane waay nane nay kaay na jof taako baye